donc euh, bi ma décidé def jël voie bi nga xam ne mooy voie entraîneur xalaatuma woon keneen mu nekk sama adjoint ko dul moom parce que moom moo ma xam pratiquement moom moo ma formé dolli si nag bi mu ñëwee vraiment mu nekk nit koo xam ne euh, très ouvert 30 ans d' expérience euh, lépp lu mu amoon lépp lu mu yoroon jox na ko Sénégal vraiment tey ñu ngi koy sant ñu koy ñu koy gërëm au nom de tout le peuple sénégalais vraiment pour lépp loo xam ne def na ko ci ci ci ci réew mi voilà diko ko vraiment diko ñaanal vraiment fu mu jëm gënal ko fu mu jógee. am laaj bu ñëw ci mbiru latéral euh, droit de métier. bon latéral de de de métier man li ma li ma li rek moy que on a dañu am ay joueurs yo xamné ne mën nañu jouer ci poste yi tay tey bi ma doon jël Crépin diko def latéral wala diko jouer loo ci côté côté côté droit bi. Euh, subir na critique yu bëree mais après Coupe d'Afrique bi ñëpp d' accord nañ ni que Crépin remplir na critères yi te remplir na rôle boobu. donc tey Habib Diarra gaa xam naa ni que numéro nu mu tudd milieu de terrain la mais tey fan la ko équipe bi soxla mooy piston te loolu waxtaan naa si ak moom xam na ko mës na ko jouer du loo xam ne lu bees la mais boo xoolee côté gauche bi am na benn xale boo xam ne bu tudd El Hadj Malick Diouf indi nañ ko donc ça veut dire que suñu souci tamit mooy que ñu jéem a xool si côté yi parce que tamit côté côté. <laughs> poste côté yi poste problème là ci équipe nationale bi depuis plus de de 10 ans même plus de 20 ans donc ça veut dire que amna ay boy yo xam ñu ngi ñëw xalé yo xam ñu ngi ñëw joueurs yo xam ñu ngi ñëw dañ leen jox temps tuuti ñu ñëw mais pour l'instant ñi nga xam ñom lañu choisir pour jouer ce poste là man xam naa ni xel ni que am nañu qualité yi pour jouer occuper poste boobu. beneen laaj bi ci mbiru renouvellement génération maanaam euh, xale yu ndaw yi nga xam ne dañoo ñëw intégrer euh, équipe bi.

rôle bu suñu rôle tay man sama rôle tay moy que à un moment donné que génération bi génn buy ñëw ni bu fi xam na fi depuis 10 ans yalla jàppale ñu vraiment lu ñu fa duggé ci bismillah rahman rahim ñu génn ci si alhamdulilah rabil alamin ak ndam mais que génération bi nga xamné ñom ñoo war yooyu bu équipe nationale bi ñooñu ba écoutez ñu mën leen mettre dans les bonnes conditions pour que justement lingué yi ñoom tamit ñu mën ko jël té ci maintenant qu'il faut le faire euh, tey am nañu ay joueurs yo xamné ne yaakaar ni que buñu ñu joxé confiance bobu war nañ ko war nañu écrire ñom tamit seen propre histoire comme ñom Sadio Mané ñoom Kalidou Koulibaly nu ñuy écrire seen histoire. laaj bi ne naka ngay aborder match bi contre Burkina Faso ndax match bi yaakaar nga ne dina yombé wala dina melni match bi nga xamné Sénégal footballon nako ak Burkina Faso demi-finale CAN 2022 tay suñu way moy que ben match du yomb parce que Sénégal moy équipe bo xamné ñep ñep ñu ñëpp ñu ko bëgg ñëpp ko bëgg daan wa kon nak bo nekké ci kaw ñep xam ni que ñep ñu ngi lay viser donc euh, match contre Burkina Faso bi xam nañ ni que match bu metti lay doon waye am nañ ci yaakaar bu baaxa baaxa baax a voilà am nañ ci yaakaar bu baaxa baaxa baax di ñaan yalla rek suñu joueurs yi ñëw ci bismillahir rahmanir rahim ñu tàmbali liggéey bi vraiment yalla may ñu 3 points yi incha allah ci Sénégal wala ñu dem fële Burundi. benen euh, laaj bi choix Pape Thiaw ndax yow ya ko tanal sa bop mais Pape comme nous ma ko waxee sànq rek doomu réew mi la ci ci ci fii sénégalais euh, n'est na fi joueur professionnel j'étais son capitaine donc euh, tey plaisir le mbégte le ci man tey mu nekk Tony maa Tony tamit donc euh, ça veut dire que l'histoire continue à un moment donné Pape et moi on a vécu beaucoup plus que nos propres familles ça veut dire que et Pape on passait plus de temps en 2002

ci jeexinu match bi fin match bi alors yan euh, matuwaay nga jël ba nga xam ne loolu ñu jànkoonteel dinañ ko mën a régler. waaw loolu laa doon wax ci kàllaama nasaraan rek bu ñu bu ñu gëstoo performance su équipe nationale bi bu ñu xoolee suñu suñu douze derniers matchs yi bu ñu xoolee ba xool pratiquement ñetti but nañ dugal nañu nañu nañu encaissé donc dernier but bu ñu dugal à la dernière minute peut-être que mooy contre RDC mais en réalité nous but encaissé en 23 matchs 23 non en 12 matchs dugal 23 buts donc ça veut dire que si nous avons les statistiques yi avons que en réalité performance ñu définie di performance intéressante. intéressant la gëm naa que équipe dynamique par exemple comme Argentine di di di dialogue wax donc je pense que c'est important tamit une euh, une évolution équipe depuis quand même quelques temps beneen bi ne dafa euh, seetlu ne euh, public bi bëreetuñu comme nu ñu doon bëré di seetaan match équipe nationale yow ban euh, jàngat nga ci am coppi lan ban ban ban appel ngay def public bi pour ñu gën a ñëw seetaan waaw loolu laa doon wax sànq rek public bi moom je pense que stade bi tamit fu mu situé c'est très difficile ñuy jógee Dakar ñu leen di jógee Thiès ñu leen di jógee Mbour ba Casamance fu nekk di ñëw euh, faciliter vraiment euh, yoon bi parce que yoon bi moo tax xëy na euh, joueurs yi nu mu public bi di di ñëw en retard mais bu ñu xoolee tamit deuxième période bi deuxième mi-temps yi souvent dañuy gis ni que stade bi day gën a fees donc di leen di leen di leen woo di woo suñu suñu public yi yëpp suñu supporters yi yëpp ñi nga xam ne gëm nañu équipe nationale bëgg nañu équipe nationale ñu ñëw jàppale équipe bi supporter équipe bi parce que tamit bu ñuy wax xale yi ñuy góorgóorlu li ñuy xaar ci public bi tamit mooy ñu porter équipe bi poussé ko bu ñuy gagné tamit dañu soxla suñu 12e gaynde bi dañu soxla wa Ali Casa dañu soxla ñëpp ñoo xam ne bëgg nañu équipe nationale bi nga xam ne ñu ngi dund ci tri équipe nationale bi nañu ñëw supporter seen seen seen seen doom yi ñëw supporter seen joueurs yi vraiment c'est loolu nañuy xaar public sénégalais nag du du du du supporter spectateur nañu waaw dañuy ñëw pour c'est un spectacle alors que ñun tey fu ñu toll nii lu ñu soxla mooy ay supporters ñoo xam ne dañuy pousser équipe bi pour que équipe bi mu dem ci kanam parce que bu ñuy la bu ñuy laajte ñun ñuy def ay performance c'est important tamit que public bi ñu pousser ñu té bo leen ñun bu ñuy déplacé wu di dem bitim réew mais mais xoolal supporter yi nañu supporter seen équipe yi Sénégal kese la gis ñun suñu supporter yi ni lañuy def croiser seen bras xaar ñu duggal bu ñu dugalee moom amul problème mais tant que dugaluñu duñ ñu pousse donc pousser leen ñu encourager leen ñu ñaanal leen ñu pour que justement fu ñu jëm nii vraiment ñu am fa ndax euh, ñaari match yi dafa jege le 6 ak le 9. Euh, laaj bi daf ne ndax yaakaaroo ne euh, joueurs yi dinañuy sonn. waaw ni ma ko waxee sànq rek je crois que ñaari match yow am na ñaari match yoo xam ne match yu difficile pour entraîneur ñu koy préparer mooy match de fin de saison yi maanaam mooy mois de juin ak euh, match de début de saison yi nga xam ne mooy mois de septembre. parce que joueurs yi bëri tey boo xoolee am na ñoo xam ne am nañu amuñu club am na ñoo xam ne tamit seen temps de jeu wàññi wàññeeku donc c'est très important si vous voulez que Tay, bu ñu ñëwee ñu mën leen mettre dans des conditions boo xam performance euh, le le 6 dinañ ko am ak performance euh, le 9 mai. fin de saison souvent c'est des matchs difficiles début de saison yi tamit match difficile la pour sélectionneur waaye am nañu yaakaar bu baax daal. ne mercato bi léegi mu jeex est ce que dinay lu sari di ngay waxtaan ak yenn joueurs yi ci seen cas

xam ne dafa fekk poste boobu tamit mu amoon keneen ku ko occupé mais comme poste boobu kenn nekkatu fa je crois que c'est normal Hussein mu nekk nit koo xam ne euh, pratiquement suñu joueurs yi yëpp xam na leen waaw parce que bu ñu ñëwee vacances moom moo leen di préparé donc xam naa ni bu ñëwee fii moom il sera pas dépaysé il sera chez lui. Euh, naa loolu moo nekkoon laaj bu mujj bi mais am na insisté beneen laaj ci wolof waaw.